mbokki presqu'île du Cap-Vert mbokki Sénégal maa ngi toog nag ak grand serigne de Dakar chef suprême de la collectivité Lébu Alaaji Maxtar Diop ma lay laaj Cheikh Ahmed Tidiane Ba mhm. bu Medina mhm. xale boobu mooy kan <laughs> xam nga wax naa la ne xale bu ne boo ko xoolee war am Je ginnaaw mag mag ko man créé jeunesse présent avenir jeunesse présent avenir man créé politique Cheikh Ahmed Tidiane Ba la hein? Cheikh Ahmed bokone jeunesse présent avenir ñu jël siège bi def ko keur sang cham de Casa atelier suma ma ñoom ma dajé ñoom fi wala ma sama bureau SONES Cheikh Ahmed Tidiane nek fa di nam xelam mu tudon tafu ak parti socialiste mais du structure politique ba mu démé bay def licence ma ko demal jàngi te bàyyi lii ci la duggee anam. demal jàngi bàyyi yi moo gën a wóor parce que ëllëg kenn xamul lu mu doon. te xale nga gis nañu ne tubaarkaal la yàlla ubbi na sa xel. kon Ahmed Tidiane foofu laa commencé ak moom bàyyante ba ci biir mouvement boobu la yàlla defoon jigéen na mu ñu wax lóota am ci boroom kër. leneen li ma booleeg moom way juróom bi ko jur bu jigéen ak sama way juru ñaareelu jabar may a Baro ñoo màggandoo yarandoo dee leen tàqale way juróom bu góor daawul dem mairie ba mug liggéeyi recette perception municipale te taxul rue Moussa Diop Angleterre waxtaan ak du Diop Moussa sama pap hmm. wande nag moom ci boppam moo am taxawaay boo xam ne dañ ko ci ràññee su ko fi defoon tam ci nu ko tudd parce que dañu koy weddi. Mm-hmm. lu ñu la jox cër cër lu ñu jox cër sëriñ Dakar jox ko sëriñ Dakaru su waxee lu dul noonu boo amee kersa weddi ko tamit jàpp ci sa njàmbur man maa ko ne fekke nga. Mm-hmm. ca dëj ca jekko ne ko say teraanga ëpp na Medina du fekke nga ko. génneel ba sax ko wax yaa ndax waa Ndakaaru nga bokkal. la ma ko waxoon keroog génnu ma ci te gis naa mu ngi koy def fu ne te loolu lenn la wante li ci des mooy nañu sant yàlla ba nga xam ne lu ñu ko dénk lu ne ci wàllu liggéeyam lépp a sell loolu tam ci la ndax bañ koo dab ci lenn kon man loolu laa xam ci moom ak taxawaayam tam ci li li président la bi li président bi euh, dénkaane parce que li mu fi représenté ko dénk moom ci taxawaay. sonn ci kon ci wàllu woowu tamit maa ngi koy wax ne na góorgóorlu lu mu mënoon benn def fukk loolu daal maa ngi koy yabe di ko wax tamit ne ko lii may gis muy def ak wax di tànqamlu di jëllale doo waxu teggin foofu moo yoon wi di jëllale ah. doo waxu teggin di dox teggin foofu moo yoon wi na jaar foofu mais man gis naa mu jox cër magu lébu mais loolu da ko doon na yow yaa góor gi atumaan ba ñooñu wàccëriñ nañu seen néegu ndey te lébu loolu la xam ca maam ya ba léegi yaatal ca maam ya ba léegi lu ñu xam moo jàppalante ca maam bi lu ñu xam suturlaalante ca maam bi lu ñu xam teggin ak yar mais magu lébu muy jàppale su leen jàppale kan lay jàppale ti leen juróom benn penc fa nekk mm. mbàkkanda cëriñ sanc ba Ngaraf, ngaraf Usmanjin, Ousmane Juran mm-hmm. am det djuram ben penc yo ñoo ñoo ñoo ngànkati Orwar orwaar dooru ñew mm-hmm. orwar mooy wa keur mam li mam lay mm-hmm. wa ku bobu bobu bobu bobu bobu bobu commune ku ci dekk bo jappal lo ñeen len da nga yak sa xaliss len nga yak say te ñu ko ci jappal ko mu jappal ko mu dekkal ko kay bu len jappale man ma ci gëna sawar li gis nga bërka démboo njaay bi nga xamee ni mbiru euh, euh, mbas mi am na fi andi na ay teraangam ci penc bu buy andi teraanga ci bu koy nëbb sax nit ñi gore am gore euh, siiwal ko moom bu buggee bin bin nit ñi tulli ko yooyu yëpp nag te yi may wax yëpp nag Abdoulaye Makhtar Diop ci boppam bokku ci de wande man sama njaboot ku leen tere ma yëgal ko te mu ngi koy def li Alaaji Amir Dieng doon wax loolu la ñuy wax politiciens yi fii lañ leen soxla sëriñ si ñi gëm na sëriñ si mun mën nañ leen war ñu xaar leen Blaise Diagne Blaise Diagne dafa mas a wax sëriñ Moustapha Mbacke yàlla yàlla doole ay leeram góor gu baax googu premier xalif maam sëriñ Touba. Blaise Diagne ñoo ko sëriñ bi mun ne waaw mu ne ko yéen ñu ëpp sens foofu laay tëjee émission bi nag. sëriñ bi ne ko waa Blaise lu tax ngeen lu lu tax ngeen lu tax ngeen ne ñu leen ëpp sens. Blaise na ko ñun politiciens yi fii la ñu soxlaa yéen sëriñ si àllaaxira te àllaaxira yàlla xam lu fa xew <laughs>